kon bi ngay dem Màkka fekk na nga bàyyi bëre bu yàgg. waaw fekk na man 98 laa bàyyi bëre laa def sama jubilé mais 95 laa bàyyi bëre. waaw 95 daal laa bëri fii man ak Boy Lambo maa ngi koy nuyu de passage parce que tamit Lambo kenn du ko ñëdd <coughs> boo ci nekkee di ci yëngu di ci amee ndam. soo dee ba la nga yëgoon yëgatoo ko la nga mënoon too ko la nga daan def yaa ngi commencé di hésiter danga nga yàkkamte am combat. combat bi léegi nga dem ba combat su ñëwee nga commencé tiit ci bis bi ngay tim yàkkamti tiit ci bis bi loolu boo seetataat sa bopp xam ne la newoon ci yow yàlla nga koy rocci waaw loolu nag foofu nga koy sentir bëree noonu laa ma xalaat combat bi ma fu jëkkër bi may génn fii ngem bu booba alay saar sama doom ji ndaw ji xale la ñëpp la samay tànk waaye étage yi ma jàkkaloo kër yëpp tiim ma mel ni benn niveau yi génn ci kër gi oh, ma triste trop fi ma taxaw laa ne ah yàlla dellu see jàmm daal dootuma bëree doxaat nañ fi ay combat yu bari nag sax. Mm-hmm. waaw yoo xam ne ay boy yu mbër yoo xam ne def nañu carrière ba ñu ngi jeexal si. Mm-hmm. ay champion Tyson mi dox nañ fi suñu combat. Mm-hmm. waaw dox nañ fi suñu combat fay ko lu bari jox ma tuuti ma lànk. waaw may sama doom la bu ma ba di bëreeg moom kay ci ñett fin làmb dama doon bokk ci groupe dama doon bokk ci lim bi rek. waaw parce am naa bëri bu ko daan mais boobaa ma doole ju ko daan. waaw booba sama bëri daan na ko parce que bëri bi ma bëree moom kenn ëpp ma ci woon bari mais doole ji nekkatu fi. waaw ah, doxal nañ ma fi doxal nañ fi yeneen combat sax yoo xam ne yi dama ne du ma bëreeti ñu waxoon ma lànk ma ne dootuma bëri. jàpp sama liggéey ci laa nekk muy Sonatel may nuyu waa Sonatel yëpp. jox fanaane ba retraité ba tubaarkàlla. alhamdulilah noonu daal laa def. Hmm.